Botak, linga gëna bëgg liggéey ba lot yónnee ngir ñu jox la gëdd ya gëm naa ni li ngay wuti mooy fii réew maa ngi lu koy sukkali jogu fii gëm sa bopp ngay def bañ xeeb liggéey bu ñëw nga téem yoonu tekki dafa metti nekk sa dëkk moo la ci génne kaay waay kaay waay kaay toog sunu réew billaay I'm not for you, nah Guy, why, guy, why, guy That is you real, well, like I'm not for you, yeah Guy, why, guy, why, guy That's you real, real like I'm not for you, nah Guy, why, guy, why, guy That is you real, well, like I'm not for your own. God. Alpha Lily, Lily, God. جو xoolal bul def nii bàyyi lii xaalis dong la c'est di nga ñëw dina ñëwaat di nga si jotaat te bul wari bàyyi ñi jël sa xaalis nii nii ah leer laa lay tegal nii sa àq dina leen dal wun ni yàlla yow yaa toll foofu yow lan moo tax xeexoo lan moo taxee ko bu nekkoon man dañ ma jam sax mais sama xaalis duñ ko yóbbu yow xaalis boo liggéey sonn si ñaata temps benn góor yàlla jóge fële nan ko ci yow dafa yomb ma dafa yomb trop eh loolu neexee nag bu ma faale. kii fuu la bu ko déglu. dëgg. ngeen toog naan ma da nga nooy da nooy.

Ok, c'est li ngeen def nii dara baaxu si. Ah, yow doo lijjanti sa bos te bàyyi ba su jàmm. man sama film nice na ba pare dama lay jéem a jàppale rek koo bàyyi mu demal boppam rek de. soo xamoon ni ñuy defee film bu neex doo nekk stagiaire comme man. suñu paree ñu ànd ma présenté la ay nit yu wóor yoo xam ne ñooñu bu ñu la wax ni que man du ma cuune. <laughs> Franchement, boy, j'avoue qu'il y a un renforcé entre la théorie et la pratique. Quoi. Mhm. Parce que, tu sais, quand tu regardes les gens, tu les Tu bégales à sa bop. je refais ça quand ils veulent, c'est décidé. Ma je la lâche plus. C'est vrai quand même que nous, on a la chance d'être accompagnés si nous voulons. dit jii mes parents bu ñu fi nekk en plus il faut avouer que là, ce premier cachet tout en faisant ce que tu aimes De neex merde. Merde.

lan la. Massa alors woo naa docteur mi ngi ñëw dégg nga mun nga yow bul pousse de. dama naan dama xool dama attends yow pour yow da def fi dara lu baax. parce que xam nga ne li nga def baaxul. non mais attends yow en fait. da ngay nangoo dégg dëgg nii dara baaxul. déglu ma on dirait que séquence bi ba nga koy tourné da nga doon nelaw en fait. mais na ni que séquence bii nii. moo gën a baax séquence nga def. waaw baax na on verra. baax na. Simon indi nañu keneen. ah d' accord yow li muy sa technique de doxaan ko yow daal yo yow lu la neex ngay sa gémmiñ daal. yow lu ma j'imagine que tu Elisa. oui c'est moi Elisa. ouais chaque jour je je fais un wax. Mhm. non mais Je sais que ma fan Aïcha. enchantée Aïcha moi c'est Elisa. Elisa ça va. Moi, on suis guitariste mhm. Aïcha day quoi. ah d'accord elle est de clip. ah kay moom bi faire clip Le clip est nice là clip nice non mais pas c'est quoi

Euh, comme elle vient de le dire, je suis réalisateur, mais la meilleure quoi. Mais bon, je vous laisse ensemble D'accord, à plus. C'est qui ton Simon là euh, wax naa la je nee naa la ñoo bokk fi ñu nekk di def stage. fu mu dëkk. waaw xaw ma plateau lañ on est devenus des amis voilà c'est ça pourquoi nga une enquête comme ça. dama xam lu nekk ci xelu xale yu góor yi mu Simon cool boy là en plus man magu jëm laa xam naa bu baax lu may def on dirait que t'es jaloux en fait. dégg nga Dame.. Ça va temps il allait mieux. Mais malheureusement, il a rechuté. Et les mots la fois passée, tu Il faut qu'on le fasse. C'est la meilleure solution. mënul ñàkk mënul bañ a am te lu mënul ñàkk faw moom j'ai des rendez-vous Nous vais me rendre à l'hôpital on s'appelle comprends pour acquise lol la wala dañu bindé réservé sama jëb nga japp ma nak dima ping pong boobu ba léegi xamal na du jakka ba eh, eh, eh, te du église ba eh même sama jamm la wax di sa bëggante bi yow ya ko sumbo dang kay bëggante par la force lu lèr nak la la wax mais toi ça va pas ou quoi neexaluma la Eh, que ça soit la première et la dernière fois que tu parles avec moi sur ce ton, yang ngi may dégg su nekkee nag da nga tàmm di wax may noppi nga foog que tout est ok yang ngi nax sa bopp man du ma sa morom ma kaa fii attends dafa am jabar noonu am na jabar ba am ñaari doom <laughs> Elisa moytul de la bëgg ñu def la ko bul ko def sa jigéen jigéen moom dafa gaaw a xat si kër bul nangu réeroo di am si diggante Abdel ak jabaram ndax yow mais attends man lan laa def waxuma loolu xam naa la bu baax joxul nga may wax yow yaay kat xam naa ne daf laa wutal stage juste dama ni rek bu leen si boole lu si bokkul Abdel mag laa ko jàppee mu jàppee ma comme sœur loolu moo fi nekk te du changé waa baax na ani daam ah, nga rek daam mu ngi ci liggéey bi moom aussi mais yow nag kañ ngay ñibbisi danga mën a ma. dama hmm, naa la tuuti rek

Да, это... Да, может быть. Да. Того. bu nga lu ma bu baax yàlla du teg kenn lu mu attanul te leer na ma di nga dem kan ba fàtte lu bëri ci di nga dem ay at ci kanam di ko xalaat di reetaan ah te sa nah, xaalis bi ñu sàcc ni nga def ba am ko xam nga ko liggéey la rek liggéeyaatal non loolu du problème mandigante diggante bi nan laay def le temps que may nekk naan maa ngi lijjanti war xaalis léegi paa bi su demee nag qu'est-ce que man lan laay wax sama bopp. bàyyi lépp ci loxo yàlla lekkal sa keek naanal sa jus li ci des tamit ci loxo yàlla incha allah léppay baax bu découragé. What is it? ana lan mooy sa xalaat ci li daam dellu jàng ngir yokk xam-xam ci lu muy liggéey làkk nga fukk ak juróom ba fanweeri juróomi at tontul laaj bi si facebook réussir au sénégal ngir bokk ci ndaw yi ñuy tànn ñu teewlu ab waxtaan bu jëm ci film bi ak ñi ko théâtre jërë ngeen jëf